may nuyu également les Sénégalais de la diaspora. Madame le ministre, si votre rapport, vous prenez comme exemple l'Allemagne nazie et le Rwanda. Je rappelle que dëkk yooyu ñuy wax noonu c'est des pays qui étaient en guerre pour donner euh, euh, les motifs ou bien pour expliquer li nga xam ne moo jëm ci amnistie bi. Et je vois là une contradiction parce que depuis daaw damay dégg ñuy wax ne le Sénégal est en paix depuis daaw damay dégg ñu ne le Sénégal c'est très grande euh, démocratie et je vois là une contradiction donc si bu ñu demee ba nga xam ne ñu ngi ñuy comparer ak Rwanda di jël comparaison si li nga xam ne mooy Allemagne c'est parce que 12 ans yi ngeen fi toog yëpp ça ne va pas ici dans ce pays et qu'est-ce qui s'est passé mooy ne vous avez abusé du peuple sénégalais vous avez fait souffrir le peuple sénégalais te li may wax nii madame la ministre ci rapport bi laa ko gis qu'est-ce qui se passe dans un pays en guerre assassinat torture Et depuis 2012, c'est ce qui se passe au Sénégal. Donc il n'y a rien, rien qui nous différencie d'un pays en guerre. Et qui est l'instigateur C'est le président Macky Sall. Donc pour cela, et dans ce, dans ce siège, journalistes, ouvriers, étudiants, personne n'a été épargné pendant ces 12 années au pouvoir. Nous, députés de Yewi Askanui, nous avons pendant longtemps attiré l'attention des ministres qui passaient ici sur les tortures ak si les répressions excessives yi nga xam ne moom la ñuy teg doomu réew mi mais toujours vous avez applaudi les réponses du ministre ici monsieur da ngeen di tàccu chaque fois le ministre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ba ngeen taxaw ne ñooñu dañ leen waa bàyyi qu'est-ce qui se passe a changé ba aujourd'hui ngeen bëgg a taxaw ne dañuy def loi d'amnistie c'est ça ma grande question et je ne peux pas comprendre rey naa sa doom baal naa la àq damm naa sa tànk doom bal naa la àq yàq naa say bien baal naa la àq torturé naa la baal naa la àq ce n'est pas sérieux ki war a baale àq tey c'est les victimes de ce régime depuis 2012 et par le président et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi celui qui a été au centre de ce désaccord que celui qui a été au centre de l'incohésion bi nga xam ne amul woon Sénégal lui-même il veut venir pour dire que moom mooy organiser li nga xam ne mooy pardon bi te lu ñiig njaag moom moomu mooy njaag Ça, je ne le comprends pas et je ne le comprendrai jamais. Alors, pour la diaspora, je dis ici, avant même de parler de la diaspora, je dis non à l'impunité. Non à l'impunité. Parce que tout simplement, courir, coup torturé, coup tour d'être, tu dois être traduit en justice. Traduit en justice, nous situer les responsabilités. C'est pourquoi je suis vraiment désolée, Madame le ministre, parce que j'ai vu ici, vous avez un, ce passage, vous dites, au contraire, que la vérité est qu'il est d'autant plus fondamental de pardonner madame la ministre mën nga jàkkaarloo Sénégalais les yeux dans les yeux nga ne leen la vérité est connue si ñu ñu tëj mën nga jàkkaarloo Sénégalais yi vous osez regarder les Sénégalais pour leur dire que on connaît la vérité xam nañu ku def xam na ku deful je pense que la vérité leeragul amaguñu dëgg donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui génne leen xale yi ñu ñibbi maintenant pour la diaspora je parle à son nom je dis La diaspora dit non parce que xam ngeen ne l'internationalisation de ce combat ñun ñoo ko mené dans la diaspora. La CPI ñun ñoo gunge li nga xam ne moom mooy plainte bi dem CPI donc nous disons non à l'impunité. On n'est pas d'accord, il faut que la vérité jaillisse. Et maintenant pour nous de PASTEF, on n'a jamais été demandeur, demandeur, je le répète. Le président Sonko n'a jamais été demandeur. Yéen a ko def, yéen a koy dindi. Et à la fin de la soirée Je pense que les gens vont comprendre. Madame le ministre, vous avez fait souffrir les sénégalit Man ay Aïcha, en tant que députée de la diaspora, je ne le pardonnerai jamais. Combien sont les sénégalit de la diaspora ñoo xam ne tey mënuñoo ñëw seen yaay génn na àdduna mënuñoo ñëw seen baay génn na àdduna mënuñoo ñëw diaspora yoo xam ne toog nañu ay weer mënuñoo seet ci seen bopp. Pourquoi parce que dañu leen soupçonné ne wala dañu wax ay opinion yoo xam ne dëppoowul ak ki nga xam ne mooy njiitu réew mi dañu def ay ay position yoo xam ne dañ leen caricaturer teg leen et pourtant fii si biir réew mi nit a ngi def lu ko yées ñu bàyyi la ngay dem fu la neex di dellu si donc madame la ministre je retiens la question fondamentale de l'honorable député Oumar Sy et je pense que vous allez oser répondre juste et précise à cette question je vous remercie